bisu tay bi nga xamne tay dang koy jëmele ci ay tutang, tank ci tout tank yi dañu ne xalé yi lepp ngi ci ñom lepp loy wër rek wër ko ci xalé ak néew gi doole yi ak jigeen ñi ñe lepp ngi ci ñoñu kon abib yal na la yalla jàppale yal na la yalla taxawul taxawul la ak yow ak kep ku lako yene ñun nak dinañ la xamal man sama wax sax si bari nak sama kilifa dafay ñew mi ngi ni tok di monsieur Bassi xamna ni mom laay jox kaddu bi mom mu wax mu wax euh, liñ fi wax. waaye dama lay xamal ni rek sama xol sedd na guy waa sant bi tam seen xol sedd na guy jot moo amul waaye kon la ñuy woo parents d'élèves yeeg ñëpp ñu fekke lu mel nii presse bi ñu woo ko mu ñëw fekkee lu mel nii parce que lii dafa rëy ci ñun lu rëy rëy la ci ñun bari na ñu fi ñëw te lii wax ñu ay wax te tam lii nga fi def kenn def defu ko fi kon nag lii nga def lu rëy la ci ñun te bu soobee yàlla àdduna dina ko dégg suñu xool sedd na guy Habib yal na la yàlla jàppale ak sa collaboratrice bi nga xam nopp lu guddi nopp lu bëccëg mi madame Badji ñu ngi koy sant di ko gërëm ci turu kilifa gi toog man damay wax ne rek jikko jikko du nëbbatu foo dem wane ko ko imaam muy bu baax muy bu bon foo ko toog boo ko bëggee nëbb yi du nëbbatu macha kon ba mu teewee wane na jikkoom di ko ñaanal yàlla a ah, di ñu ko wóolu ba jox ko ko yàlla nañu dem ba am ci ndam ah lu ngeen di wax rek xol bu tedd doy na ñaan nit ñi ñu ngi naan ñaanal ma ñaanal ma ooy ko nit mooy ñaanal boppam ñaanal sa bopp weesuwul fekk ku ko soxla nga jox ko ko loolu ñaan fekk ku soxla ndimbal nga jox yëkkati daal ne ko am lii xol bu sedd boobu la boo ci aajo mën na see faj kon nag ñu ngi ñaan xol bu tedd bii ñu am yàlla na ci yàlla jaale ba am ci ndax yaa xam ne loo bëgg am yàlla na ko yàlla jox di rafet lu baax c'est la première fois tey maa di grand ma sant ma ànd ak samay élèves ñun ñëpp ñu nuroo oto bi kon garage ak yow kon sant bi ma kontaan nañ ci yàlla yàlla bëgg yow ah, di ñaan aussi ci ni kilifa yi toog wax dëgg yàlla fu ñu toog seen xel bi ñu ngi ci nan la sant bi di demee kanam kon nag yal nañu yàlla jàppale. mais monsieur Niang moom vraiment dañ koy sant di ko gërëm ndax Mardi Gras bi mu def fii c'est une première amul parent bu fi participer dërëm bu gën a tuuti lépp moom la. kon nag ñoo lay sant di la gërëm li nga mëbët yow yaa ko xam yal na ko yàlla eggaleeg jàmm mais nag na nga xam ne waa centre handicapé ay góor lañu bu soobee yàlla bu boobaa di ñu xam ñoo ngi lay sant nag di la gërëm. defe naa ni depuis 1990 maa ngi si centre bi comme waxoon naa ko am na sama benn fii boo xam ne fii la jànge préscolaire maintenant professeur la. donc yàgg naa fi lool boobu ba léegi bàyyiwuma sañu maa bàyyi munoon naa ni amatuma fi benn élève mais jàmm ji ma defal teranga ji ma defal pour sama pour doom jo ba mu nekk un cadre yaakaar naa ni mbir mi ma leen mën a fayee mooy jàpp si monsieur Habib ñu ngi lay remercier suqali nga Sénégal suqali nga Thiès lii ça veut dire que suqali nga dëkk bi je dis que c'est première yow moom mën nga tëdd nelaw su fekkee ñun ay gor lañu suñ dee ay gor laa la wax nous allons te rendre la monnaie et vous verrez cela incha allah rassurez-vous rassurez-vous ay gor lañu man yaakaar naa ne suñu jugee nous ferons une grande réunion pour yow boo xam ne dañ am lu ñu si nas ñëw ba ci yow wax la ko parce que gis nañ say action ce sont des actions d'humanité humanisme ngay dohol. utuloo si garaat utuloo si tu es là pour les populations et yaa il c'est vrai il c'est vrai que nous devons door mais action yi ngay def c'est des actions qui sont très nobles donc monsieur Habib li lay wax te di tëddal en tout cas Thiès loo bëgg dinga ko am Inch'Allah, rassure-toi handicapé yi soobee yàlla ils sont derrière toi man mi nga xam maax ñoom a nekk te ñu dëkk si quartier Mbour 2 bi nous serons derrière toi nous ferons de la sorte que loo fi bëgg rek di nga ko am incha ça moom rassurez-vous tey nag comme ni ñu ko waxee c'est la fête des enfants cette fête des enfants warul nekk loo xam ni ñëpp parole bi dafay bari table ji comme c'est riche est-ce que bi ngeen fi nekkee boobu ba léegi depuis 92 mi ngi gis lu mel je pose la question waaw wala déet musu fee am musu am est-ce que fii nit musu Dougal dugal laser ah imprimante est-ce que musu ko fi dugal musu am est-ce que béquille Yi musu fee dugg am est-ce que Chevalier yii dougou fee am c'est la première tàccu leen loolu bu baax a baax Habib cordonnier baa ngi nii donc nit ki la mu def na Habib tëddal neraw doo ñu gën a gore si àdduna doo ñu gën gore te dañ la ko won yow daal on est wax ñu ñoo bëgg ñu àndeex yow ñu ànd ko yow noo ko bëgg rek wax ñu ko ñu ànd ko yow saa moom je man maa assuré incha allah dina am ah Habib mii dama leen di leeral doomu dëkk bi la Habib liggéeyam yëpp daa sel Habib dawul kenn boo demee jeudi lay commencé recevoir ba dimanche dama yor mouvement soqali Thiès kon gëm ngeen ne Habib moo ngi soqali Thiès ndax handicapé lan lañ ko yaakaare na toog di yelwaan ñu koy dimbale yéen da ngeen war a liggéey sëriñ daara dafa war a liggéey imaam dafa war a liggéey lii mu def maa ngi ko ciy sant ndax maa ñëw wax ko mu ànd ci ak man kon Habib président yow laay waxal kees metti na metti boo xam ne dojub xeer la ab bu ne ku ne ngemb fi ne dinaa fexe daaneel li ne te mënuñu ci dara man nag dafa am li ma gëm bañ may dugal ci bàmmeel heure bu président nare am ndam Thiès ci mouvement yi lay jóge mais du jóge ci biir ci biir fal loolu sambaan ni poto aw ma lu ma ciy ragal asuma nag abib ñaam yi man maa ngi koy baalu àq ndax li muy demee ay moyen boppam la du moyen bu ko état jox mooy kenn xamul lu mu am def na ko ci askan wi di gërëm aussi soo gisee mu baax politicien lu lay arrangé mooy nga am entourage bu baax entourage c'est très important yonent bi dafa amoon entourage ñi ko waroon bu leen defee ne ay kii la ay entourage am lañu ba ci ay Serigne Touba Cheikh yi nga doon dégg ak Seydi Seydi Hadj Malick ñëpp entourage bu baax la dañ dañuy def dañ koy def nañ doxale nii ak nii Habib nag ci loolu lay dox madame Barji ale mbay mii munoon nañu ku ñëw ñu xatal la non dama lay wax boo demee saison bee boo eggee ñuy gam dangay ngay egg gaaw ñu dugal la ñu nga wax ak yow te Habib dafa am un jour ñu toog di waxtaan mu ne man soxlawuma nit bu nekkoon ci benn leaderu APR ñëw naan damay du sa mouvement bugguma ko ana koo fi mos fal muy def lii amu fi Habib ko bàyyi xel keroog bi mouvement yi di organiser laa leen ne yéen a ngi def de mais am na lu juddu te am na tànk am na loxo am na bopp ñu ne la ma ne mouvement Habib ñu ne ànd nañ ci moo ngi nii toog alalam lay demee bari na imaam yu bari dañ koy gërëm daara yi dañ koy gërëm nit ñi dañ koy gërëm amul ku ko gërëmul xoolal xale yu ndaw yi ñii buñ la ñaanalee rek mu jekk ak ki wax léegi Habib lii dafa rafet nañ waxante dëgg man Amary Thiam moo ñëw wax ma problème centre bi ma ñëw wax ko Habib Habib jóg c'est la deuxième fois mu ñëw vraiment nañu Sénégal bu ñu nax suñu bopp ak dëkk bii Thiès gii Thiès am nañu ko mun a doxal mais président bu yaakaaree ñii mu fal fii ah du ma ne ñëpp a bonde wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne ñoo ngi ciy def lu baax du ma tudd seen tur mais na bàyyi xel ci mouvement yi xam nga keroog damaa dem man leen am naa solution ci Thiès ñuy wax na ban solution solution baa ngi nii keneen ku mel ni moom ku def lii nga am solution mouvement yi ñoo fi nekk di jóg ak seen doole di jàppale président te président joxu leen benn mooy falul benn nit ci biir mouvement yi na jàppale mouvement yi mooy dëkk su dee bëgg na Thiès bu jàppalewul mouvement yi ñu fi nekk munuñu ko yokkal dara man maa ko wax man te am naa ci lu leer dëkk bi kenn gënu ma koo miin amul ki ñi muumaay ñi yor muumaay amul heure yu ma leen dul fëgg te lu ma leen wax ñu def ko asuma abim may abim mii toog abim a ngi nii heure bu nee la mais sama mbokk la nag mais nag lii mu def dafa rafet xoolal lii lii lii nga jël jàppale ko ay jullit ñu mel ni yow ah am na ñoo xam ne tey boo demoon seen kër dañ naan nekk nekku fi non day tëj buntu bi ne nekku fi mais lépp nag nañ ko gërëmee entourage am entourage c'est très important mm. am na politiciens yu bari entourage bay leen yàqal ñooy xatal ñooy yàq nañ ne alte nag na ngeen bàyyi diw ci kii la nekkoon ñëw na ci diw loolu baaxul maa ngi koy gis muy dox ci dëkk bi dinaa ci liggéey te dina dakk kees kenn du ko yàq ku mënul indi ay nit na la président jël fii wut ñu mën a indi ay nit jàppale leen ñu jàkkaarloo ñoom ci xeex moo gën xasse yi ñuy dem di xasse nawle yi jaru ko nañu liggéey moo gën xasse amul benn njariñ yaa ngi xas ki ngay xas moo ngi liggéey amul njariñ kii dafa bàyyi liggéeyam tay jour kilo, la mais da ko baye ñew tok di jappalé nit ñi nañ waxanté deug nañ wax deug mo neex yalla olof ñay dafa wax mais gennu golo gudduna waye du ca laal borom yëg ko tay ñun handicapé dañoo am ay problème majeur yo xamné ñun mom la déné moy lan suñu insertion nan la mëna def ba jot bala nga am insertion nak mobilité mom mo nga jëkke taxaw tey lii nga def tey jii ci mobilité tey ji yàlla moo la koy fay ndax ki nga xamante ni mënul dox wala suy dox su yoree béeki bu dee béeki boo xamante ne nii ambu bi baaxul bu doxee mu tarxiis daanu kooku soo ko fegalee loolu rek danga koy xeeb waaye fegal nga ko lu rëy nga may ko loo xamante ne nii ci lay sukkandiku ba liggéey kon yow kooku yaa ngi koy jàppale ci insertion kon yow li nga def bul ko xeeb te yàlla sunu borom moom moo la koy fay ndax ñun handicapé deug la ñen ñu bari dañoo yaakar ne ñun dañuy dëkk di talal suñu loxo di ñaan mais ñaan bobu du suñu sago bu ñu amee ku ñu jappalé ci li ñuy def kenn upp ñu jom kenn xamuñu nan la ñuy def ñu xam nu ñuy def bo faj suñuy aajo kon ñun li nga ñu defal yalla mo la koy fay ñu ngi lay ñaanal yalla ya xam li nga bëgg ci sa xol yalla la ko yalla suñu borom defal mbooleem ku fi teew ak ku la jàppale ci liggéey bi muy góor muy jigéen lépp lu muy yóotu te mu nar a nekk wërsëgam yàlla na ko yàlla sunu borom yombalal yombalal ko ñépp ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo fi teew monsieur Niang tey bisu mbégte la bisu bànneex la ci ñëw bii nga ñëw tey ji centre handicapé moteur indil leen jëf ji nga xamante ni kenn mënu koo xayma pour bëgg seen yokkute ak seen autonomisation bi nga xamante ni moom la handicapé di wut ci biir société bi. ca loolu mën naa ni politique état bi moom nga topp parce que ñun ñiy bokk ci ministère de la santé et de l'action sociale. xam ngeen ni depuis 2012 ba nga ni changement opérationnel bi nga xamanteni amna am au niveau de l'action sociale gis nañu kat yokkute am ci ndax te so fa démé tay ji wax deug yalla muy formation professionnelle di projet économique bu RBC bi di appui scolaire bi di appareillage bi tay ji nga indi di journée culturelle yi nga xamanteni dañ koy organiser di kat d'égalité des chances yi nga xamanteni ñing koy liggé ci way je pense bien que lolu mat mat sëkk go xamanteni ni kuñ ni sax président nga andal sax tay ji sax war nga am parce que c'était un long combat bo xam te dañ ko doon mëne suñuy mag nek fi ba faatu dem suñuy baye dem ba faatu fi dem ñu ni jëlati combat bobu diko ko ba loi d'orientation sociale bi ñëw tay ji ba ñëpp jangat ko ba xam ko donc lolu bokku na kon ci li nga xamanteni wax dëgg yalla en droite ligne avec les politiques sociales de l'État ca kat heure bii may wax ak yow ni le premier ministre est en train de recevoir pratiquement la fédération nationale des associations de personnes handicapées pour que certaines lignes directrices yi nga xamante ne war nañ ko ñëw avec les ministres concernés ñu jël ko te je pense bien que fii ngoon bis bi ci génné dinañ ci am ay xibaar yo xamante yu ñi neex la yo xamante wax dëgg yalla dina yokk autonomisation personnes handicapées centre bi nag depuis 1990 par une ONG allemande du nom de Sénégal en partenariat avec l'association départementale des des des moteurs. C'est ci loolu moo je suis venu sax madame Badji parce que loolu que je sax ma xaw a def protocole une représentante quand même de l'association parce que dafa suis ci kër gi mën Maintenant, ne sax ñoom ñooy est kër lolo tax ma jox len parole pour que ñu wax au nom quand même de l'association des handicapés moteurs di sante nak bu baax nak le partenaire bi nga xamante nak nag deug yalla boba ak leg nag nit ñi gungé te leg ak boba ak leg amna juroom ñett fukki at pratiquement ak juroom ñaar donc mu lern ay mag lañu te ñi ngi doon gungé ba neug ni ñi di ci japp nak handicapé yi di ci japp sank sumaré wax nako ko xam nga ni jigen ñi kenn fayu len chef d'atelier yi ngay dégg yëpp kenn fayu len ca loolu ñu ci mën a am rek ci yi nga xam te ne dañ koy générer par rapport à la garderie par rapport à la culture par rapport aux activités menées au niveau quand même des secteurs d' activité ñu mën a xool leen ci mën a motiver pour que ñu mën a doxal liggéey bi. lii nag nga xam te nag indi nga ko muy appareillage sama mbokk mi wax na ko. handicapé bis boo réglé problème appareillage am rek réglé problème mobilité am rek fu mu bëgg a dem dañ fay dem fan yëpp ñu ngi ciy dox sama naataangoo bii toog di ma sàmba say encore une di ko sant. dox nañ ci dox yo xamanteni dox yu ëpp ayam la ça fait 2 mois 3 mois ñing ci dox donc pour vous dire que appareillage bi nga xalat man dafa xawma kan moo la ko xalatal mais bokk nañ suñu premier credo bo xamanteni ñun mom lañuy xex ñun dañ koy gis mu jaral ñi joy dañ koy gis ba ku ko indi rek xamal ni saa waay la nga bëgg man de gëm na ni li nga bëgg approche bi nga bëgg man nga ko mëna am parce que appareillage bis boko régler réglé rek réglé nga lepp man ni fonctionnaire sax des fois damay am problème mu appareillage mais dootuma mëna dem sama beeke da dootuma mën a dem wala sama beeke yàqu may bëgg xol dima lijeenti benen lijjanti beneen man ko am donc waxtuma la ki nga xam te ni amul sax leneen lo xam te da koy japp indi leen ay photocopies indi leen ay matériel d'appui d'appoint yo xamanteni ne wax dëgg yàlla centre bi la te kat sank am na ko wax dal ah, na ak est dal na yi daanaka sa am su bu dal am de goroloo gii de def na ni de gëj da fay am donc une fois en tout cas dal ñu li ñi ñaan moy que cette collaboration soit pérenne que cette collaboration soit fructueuse sànq amna aussi ko wax sa seigne dem nit ci japp di dit la jappalé da ngay xam ne dafa jub pour jappalé la man lima len di dénku rek ngeen ngeen japp matériel bi nga xamanteni tay tey monsieur Niang indi nako tay ba deun wala ba kenen ko fi mënta ñëw ci fek fi daal ne diw mi kat ba moo ñu ko jox parce que lool rek ci am solo liggéey ba nga xamante ni ji kula ci fek même so don def stress ñun la ah bopp bi de monsieur Niang mo mako fi indiloon journée mardi cra ah nga ni photocopieuse bi nga ni ah photocopieuse bi de on l'a eu grâce a de partenaire privilégié monsieur Niang appareillage bi ki ciy dox sax danaan sax man de béykat bi de ci monsieur Niang la ko jëlé donc man li ma leen di ñaan rek moy nit ki su ñëwé di leen jappalé ngeen xamni ni fay ñëw pour jappalé leen ci xamni ni man ni ma ko ay mbiram pare gu ci man du ma déglu sax stade bi sax man toujours Amary daf may raconter lépp loo xamante ne xew na fii mais dama ne ko man action ya muy def parce que commune zone nord laa bokk xam naa yam fay def yëpp yëpp yëpp ma ko fay def donc kii kon ku mel nii soo ko amee nga xamante ne soo ko fëggee buntam rek nga am ko wax dëgg yàlla kay doon na un partenaire partenaire boo xamante ne ku nekk liggéeyal la dañu lii rek wut parce que centre bi amul koy fayal ndox amul koy fayal courant amul koy fayal ay ay katam donc soo gisee ku la ciy jàppale kay wax dëgg yàlla kay ne ko gonga donc euh, monsieur Niang ñu ngi lay dalal jàmm te nag du yem fii sànq wax nañ ko parce que activité bi dafa xaw a jàmm mais nag l'association quand même compte quand même organiser pratiquement une grande manifestation d'envergure départementale

en tout cas zone nord nañ nga dëkk sama sañoon nag nga nekk maire de la commune de la zone nord ci élection municipale yi ñu nag moom dama bëgg nak da laaj la mairie de zone nord comme ça ñu mëna am nit aussi ñu léegi parce que man lii laa gëm man action concrète daal la digum douma sax problème xaalis ñewal joxe sa matériel kii kat bëgg na li nga ñew joxe ko nit ñi japp ci ñepp do japp ci lool dal suñ ko mëne am dal defe naa ne daal moom moo gën di sant nag di gërëm ñepp asalaamaaleykum eh, mbok yi eh, ma ngi nuyu monsieur le directeur centre des handicapés ma ngi nuyu enseignants yi ak ñi eh, délégation bi ma xamné manam mom la andal ak élèves yi ma lu mu mun rek moy vraiment dama contane parce que xalé boko ko rek yalla contane ci yow parce que ben wax rek toujours lay faral di wax président bu mu jëlé son pouvoir lan la nek wax mu ne moom son combat moy ñep nek dans le même pied d'égalité moo bo xolé xoolee som moom jël conseil spécial bu do handicapé mu jox ko pour dire que li nat la mais li amul solo man de vraiment lu mu mun mooy dama kontaan bu baax wax len rek li ma def ni duñ fi yam rek dinañ continuer à vous accompagner bu baax baax même enseignant yi si signe réseau bi sax suñu mouvement bi dañu créer un réseau des enseignants dañu fexé enseignants yi jokkoo ak ñun dinañu xool ñu leen di jappalé parce que am na ay projets yu bari ci bir mouvement bi. lu mu rek mooy tuuti expliquer leen ñun en tant que mouvement ànd soxla ties ak abib nya ñun on est des acteurs de changement de développement dañuy ñëw pour jappalé son excellence le président Macky Sall dañuy ñëw pour concrétiser actes yu xamné président mu ngi koy def. boo xoolee sémi bi moo ko fi indi boo xoolee bourse familiale yi moo ko fi indi gratuit moo ko fi indi donc ñun lu ñu mun mooy vraiment di taxaw si tànkam di ko jàppale ñun nag defuñu politique politicienne du ñuy sànni xeer du ñuy wax kenn xam ne lu ñu lu ñu def rek mooy li muy faral di wax toujours mooy c'est les actes qui yëpp jëf rek moom mooy suñuy action jëf yi mooy wax suñuy wax moo tax suñuy wax yi bëriwul lu ñu mun mooy jëf képp ku xam ne maanaam wax nañu lii wax nañ la benn kàddu wax nañ sàmm nañu si yow jël nañ ay promesse yi dañu ko respecté ñun nag mouvement ànd soxla Thiès dañuy ñëw mun nal pour di Thiès pour émerger Thiès émerger la commune parce que comme niñ ko xamee Thiès lu fi nekk yaa a beaucoup de potentiel université baa ngi fii Eh, ya l'aéroport ay baangi fi semaine de fer baangi fi xalé yaangi fi dañuy jang ba paré am ñu liggéey ñun dañuy ñëw nek sen acteur nek sen avocat au président auprès du président public pour informer li nga xamné manam mo nek ties en tout cas man vraiment dama contane ak sama délégation bima andal pour wax len rek ñun dinañ continuer la accompagner bu baaxa baax pour wax len rek ñun yamuñu fi dañuy ñëw pour lan pour liggéey ngir askan gi moñ tax liggéey ngir askan gi mooy lan mooy yépp li nga xam ne yéene nga ko sa bopp nga yéene ko sa askan ñun loolu mooy suñuy point fort moom la ñuy ñëw vraiment di ko def vraiment lu mu mun mooy di leen sant di leen gërëm di leen ñaan yàlla yal na yàlla gën a dolli taxawaay bi li nga xam ne def nañ ko fi tey. tonton abi.